di wax ni maag sama supporter bu mu pëliwuñ ci dara man sax bu ma wax ay mbëri supporter la maa ñoom famille la puisque chaque jour ñoo ngi demalante muy xew muy ngénte muy naqar lu am ñu ngi ba tax na maag ñoom bu mu pëliwuñ ci dara man nag dafa am lu may xaar parce que tey bu la yàlla dimbalee ba nga yor li nga xam ne ñëpp moom lañ soxla tey affaire bi dafay gën a sori lu mën a sori la mais dafay gën a sori ba tax na xam nañ li xaar baax a baax a baax te ñoo ñoo ngi ci li ñu war a gars yi gën a jàpp rek muy fu nit nekk waa di supporter moo loolu na yokk ñaan yi ba li ñu jëm incha yàlla defal ci ndox mu sedd buy merci. Papa Gracias. waaw waaw ñun yaakaar bu ñuy am ci CNG bu bees bi moo yaakaar bi ministre am ci ñoom ba teg leen fii parce que am na li nga xam ne yaakaar naa ne ñoom ñoo ñu ko amaana ba ñuy nekk ci làmb ñun nekkul ci woon te ñoom yaakaar moo tax ñu teg leen fii te gëm nañ ne incha allah dinañ yokk mbir yi te dañ ne ko yokk da ngaa wàññi te nag dañu ñëw xam am fu ñu fekk làmb tax na ñu ngi yaakaar ci ñoom bu baax a baax yóbbu affaire yi fi nga xam ne weesu na sax njort daal affaire yi ñëpp gis ci seen bopp képp kuy nitu làmb daal gis ci boppam loolu la ñuy xaar ci ñoom te yàlla leen ko yàlla yokk